asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi ñu ngi ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke suñu borom yàggal ko fi ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp su ngeen gisee jotaay bu yànj bii ngeen xam ne ñu ngi waajal bis bu mag bisub jàmbaar yoo xam ni ña nga tëdd ca Touba Romnaan waa Touba naan tey daje ngir woote seen bisub maam yooyu muy bisub Touba Romnaan. muy màggal koo xam ni ñoo ngi ko tàmbalee war ci 1960 ba fii ñu toll tey mi ngi ci juróom benn fukkeel bi yoonam ren jii. ñu koy màggalal ñan nag mooy muudi ak baaba ak bilaal ak sàmba yu ko muy ñoo xam ni seen askan ak seen cosaan ñoo nga bàyyi ko ca makkatal mukarama seen néegum day nekk ahlu baytu rasulullah seen néegum bàyyi nekk abubakar sadiq muy màggal goo xam ne nag lu mat a bàyyi xel la ndax ñoom ñooñu lan nekke woon dundal alquran ak dundal sunna sallallahu alayhi wa sallam di woo ñëpp rek bàyyiwuñu kenn waa réew mi bitim réew ak fooy mën a nekk Sénégal ca bokk ci askanu Kànkar ñoo ngi lay waag ñoo ci a bokke waarom naan di woo ci bis boobu sëriñ Muntaxa Mbakke xalifa général de Mouride waaye di woo itam sëriñ Ahmadul Muxtaar di woo mbooleem waa Daaru Xudus gépp waaye noonu la ñuy woo itam sëriñ Abdoulatif Jenn mi nga xam ni moo jiite képp koo xam ne kuy wuyoo jenn nga waaye di woo itam sëriñ abbas mbàkke daarul moxti yi di woo itam sëriñ bay si mansoor te xalifa général de tidiane di woo baax baax itam sëriñ fàllu jenn fële ca eh, guy meew ka di woo baax a baax sëriñ abdul akram mbàkke mu kàbb gay ak mboolem chef religieux yi nekk foofu ci tund rom naa yu yëpp ak bàyyiwunu kenn président Macky Sall ñu ngi koy woo baax a baax a baax mook mboolem membre gouvernement ba fa nekk yëpp waaye noonu la ni woo itam Aly Ngouille Ndiaye di ñaan mu teew ci bis boobu mbokk yi président assemblée Moustapha Niass ak mbooleem personnel bi nekk ci assemblée gépp ak kenn ku ne ak parti boo ma di bokk rek ñu ngi lay woo ci bis boobu euh, soxna euh, Mariam Faye Sall moom itam ñu ngi koy woo moom na ab wooteem la ñuy teg mu mu jiite ko ci mbooleem jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement Macky Sall bépp maire euh, maire communauté rurale Ndande di Adama Fall ñu ngi koy woo moom mbooleem personnel bi nekk ca commune ba yëpp waaye noonu la ñuy maire communauté rurale bu Kabou Gaye di Serigne Dame Gaye ak mbooleem ay dirigeant yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo préfet bu Kébémer ña ngi koy woo baax a baax a baax di woo ñu mu àndal yëpp di woo itam sous-préfet bu Ndande waaye noonu la di woo itam commandant ak ñamu jiite ñëpp ñu leen di woo ak mboolem ko di takk der rek ña ngi lay woo ca bis ba mbégtem nu daje nun ñi ko bokk waxtaane ko ba mën a ànd màggali ko muy màggalu Ndakaarum ka boobu mu lay wax buñ fa demee nu ñaanal sunu ay maam yoo xam ni ñaan ci boppam ci aji dem ak la ci aji des yi ca way dem ya rawatina di seeni maam doxuk bokk xàmmente fa ak sun bopp waaye nag nammante ku fa ak sunuy cosaan ndax garab du rëy rëy ba fàtte ay reenam bu dogee rek mu xam ni si lu àndut lu toogul ci reenam taxut kon ñun suñu dem foofee ak suñuy woote foofee mooy delloo woon mbattu ca ndaa la ñaanal suñu maam yoo xamee ni ñoom ku ñu dul woon sa maamet nga war a barkeelu ca ñoom nekk nañu ci melokaan wa gën a rafet ci nu ñuy damoo nga xamee ni nun sunu eh, nekk lu cay rafet bañ koy bëggee bu doon damir la du damir bi day dellu ca ñoom ndax doomu aadama bu nekk ci ay mbokkam lañ koy natt léeg-léeg rafetaay bu rëy nit def ko ñu ne ah fu mu dëkk ñu ne barab sàngam ñu delloo ko ca dëkk ba jàpp ni jombut ku mel noonu mel noonu ndax xam bu ñaawala nit ñu delloo ko ca dëkk ba mu jógee ni ah xanaa du dëkk sàngam rek la jógee kooku nag ceddo la kon lu ciy rafet te nga xëye ca ñoom lan ko jëlee di leen delloo njukkal woote ca loole wuy ji jellu am solo la noo ngi yëgal képp koo xamee ni sa bopp ñor na la sa diine ñor na la nga yëg ni si yàlla moo woote ci loo xamee ne lañ fay defi jaamu yàlla la bigee màggal ñaanal ñoo xamee ni ñoom ñooy sunuy cosaan kon mbokki jullit di mbokki taalibe yi woote baa ngoog la 15 lay doon waa tubaarum naan nag ñoo ngi woo mboolem njabootu sëriñ Touba gépp ak ci njiital Serigne Moussa Dia ñuy wax nag ci turu Serigne mbake kon bis baa ngoog le 15 mars te Touba Romnaan alaaji Serigne Cheikh Diop Mbaye ma fanaa ne guddi gi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.